jigéen ji woor na bàyyi xel ne bu demee bay dog ba dog di bëgg a des juróomi minute wala benn minute régal dikkal ko koor ga yàqu na kooram yàqu na day jël bés boobu fay ko day yàqu na de dem na ba des benn fan benn minute mu teye e, jant bi so fa régalam dikkal ko jeex na day fay bés benn minute boobu yàlla da koy toog. de ah yàlla lay woor woorul yàlla di jëriñu dara yàlla. boppam lay wooral moom moo bëgg texe. asaw mu lii wànnaay si bi. moom moom moom koor ku bëgg acca su fekkee ne itam jigéen toog na bu guddi. nga bu yoree règle. bu fajar di jot na dem ci ruq. seet boppam. ndax réglam dog na wala dogul moo gën mu téppale nekke dog na bu yàgg bu bay day kafaara ah, ah moo tey dog di da ngay dem ci ruq ba ni nii xool sa deret arrêté wul nga continuer deret ji wul nga su subaa ci ba heure ba heure xëdd jot nga defaat nii deret arrêté wul nga continue bu beneen yoonee doo ko bàyyi de ba ba nga ko seetaatee nag deret ji arrêté nga daal di koor yi walaw bi laxasatin yéeneel woor loolu la borom téere donte benn géndee ko la yéeneel woor nga gaaw yéene ne fas naa yéene woor waa ngeen ma waa sanguwul di ne la lu muy sangu na yéene woor doo ko sangu foofu doo doo doo sangu ba pare doo ko yéene woor déedéet kon koor gi da lay rëcc di da ngay yéene koor hmm. doo ko sangu ko defee mu sangu bu dogul nag dogul su fekkee ne itam jëkkër ak jabar dañu sëy bi ñu paree yàlla dogal na jotuñu sangu sangu ndax seen koor wér na waaw kooru góor gi wér na kooru jigéen ji wér buñ sangoo ba midi sax ñu sangu baax na ah, sobe gi dara buñ toogoon ba midi ñu doog a sangu yàqul dara waaye nag yéex a julli gi fajar yéex a julli mooy mbir mi wala yaxilu taqiru salaat de adami taar dañ ne daganul yéex a julli ngir waxtu julli la euh, ngir laab naa laab doog a julli déedéet tiimal julli bu waxtu julli jotee bu jotaate nga tiim julli bu jotaate nga tiim julli ba waxtu wi nga amee ndox nga doog a nag fay nga doog julli sa julli waaye doo fay de waxtu yi nga tiim julli doo ko fay da koy bàyyi noonu mais da tiim julli ba ngay am ndox waaye bu ndox amee na nga lànk ne doo dem ci ndox mm-hmm. ah boobaa nag am nga am daan bu mag bu mag da dem ci ndox voilà bi ci des mm-hmm. euh, koor dangay tëdd bu bëccëg mm-hmm. nga gént génn mën yu ci bëccëgu weeru koor ndax sa koor baax na wala baaxul sa koor baax na moo ne ci bànneex la génn bànneex ba yëgoo ko yëgoo <laughs> bànneex boobu mu génn nga eh, ci biiri nelaw mm-hmm. waxuma waxuma ngay xalaat jigéen mm-hmm. wala sa xel ni ci jigéen nga naan dama doon gént géntoo de géntoo da nga doon xalaat jigéen génn ma nii mm-hmm. waaye nga tëdd di nelaw mel ni kuy sëy jigéen nga gént génn ma niiw dara waru ci sa koor baax wér na parce que nelaw la la fekk. donc yooyu ñu bàyyi ko xel. léegi am na loo xam ni xëy na mënees na ko bàyyiwaale xel muy lu jëm ci waxtu salaatu yeeg yooyu ndax it bu fekkee tamit jàkka yi salaatu yi du benn léegi ci lan ngay référé wu ndax it loolu it euh, xëy na ñun dañ daan def euh, bokk na jàkka ji jàkka ji doon bokk kii kii mujj salaatu à chaque instant rek doon bokk est ce it noonu ba léegi dañuy encore wala. waaw xam nga li tax teel a xëdd baax. looloo tax. teel a xëdd suñ ne six heures et demi dañuy julli par exemple rek nga xëdd cinq heures naan ndox pare nga ci loolu la ci fekk waaye bàyyi ba yeewu nga dégg ñu jàkka boo dégg mu noonu rek ça y ah même bu fekkee boo julleewul la ma ne boo julleeg boo julleewul la yem ñoo bokk waxtu jàkk bu nodd rek jeex jeex na hmm. da ngay ah, boo boo maree yaa xam boo sonnee a xam boo arrêté ba subaa ba da nga teel a yeewu waaye boo lekkee da ngay fay kaafara de da fay kaafara de lekk lan léegi macha allah ba léegi yaakaar naa ni nag kon wax fa dëgg yàlla noonu mooy koor léegi oustaz macha allah fan yi ñu génn nag xëy na euh, ñu affaire waaso xewoon ci réew mi muy benn kilifa génnoon wax ni euh, moom fi mu bokk moo gën wolof yi wolof ay sàcc lan ay workat lan duñ liggéeykat nangam ak nangam est-ce que tamit euh, maanaam ci nitu diine wala mënees na bàyyi xel loolu. waaw mën naa am mu jëlee ko kalu tukkulóor mm-hmm. ak olof mm-hmm. parce que ay kal lañu mm-hmm. mu kalee ko noonu xëy na waaye daal lu mën a am laa fadla lil arabi ala al ajami illa bi taqwa yenent bi alayhi salaatu wasalaam génn bés ne leen bu ma déggate arab yi gën ñu dul arab bu ma dégg ñu dul arab ba gën arab yi mhm. ñëpp ki gën daal mooy gën a ragal yàlla mhm. kon ki gën a ragal yàlla moo gën mhm. waaye nag doo seet nit rek ci ngëneel am naa xam-xam am naa alal am naa juddu am naa lii ma gën ci ne loolu ngëneel ngëneel xam-xam euh, euh, jikko bu rafet ak xam-xam bu sa jikko rafetee sa xam-xam rafet baax na doo doo doo dal ci kaw kenn. Mm-hmm. waaye nag loolu moom naan diwli loolu rafetul. Mm-hmm. rafetul nañu nañu nañu seet li ñuy wax bu ñu wéeteeg bu ñu wéetale ko. Mm-hmm. parce que wax léeg-léeg nga wax dara di kaf gaa yi def ko farat. wax dara di kaf rek gaa yi def ko farat. allez lancé ko ci si internet yi gaa yi paasante ko fekk yow ba nga koy wax loolu taxul ngay wax. la taxoon ngay wax mooy kaf la. waaye nag gannaaw tuub na baax na. Mhm. waaw baax na macha allah yaakaar naa bu duggee ba léegi tamit ci actualité fan yee ñu génn mbuur benn xeexoo am fa ay gone nekk di njaaloo filmer it seen bopp defoon ka challenge maanaam def ko foo ci njaaloo filmer sa bopp tamit est-ce que jotul tamit waajur yi yaraat xale yi ndax it yaakaar na ay xale yu am 16 ans 17 ans ñun ci lu ni mel man mii ëlëm na ma wax fa dëgg yàlla. waaw xam nga xale yu am 17 ans. am na ñu leen gën a tuuti sax. Mhm. cinq ans six ans. Mhm. ba quatre ans. Mhm. gis nga li am solo. yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaab wal xikma. xale yi nañ leen yar jàngal leen alquran. yee leen sunu yeewoo xam ne loolu duñ ko def. waaye foto sa bopp. di njaalo. loolu lu ko jar. su dee looy ut la jar dara jaru ko. su dee da ngaa bëgg siiw dara jar nit dafay seet. liy defar comportement am ëllëg mu mu jël loolu fexeel ba sa bopp ku ci dugal lu ci nekkul waaye parents yi ñoo démissionné ci yar bi